salaamaaleykum mbokk internet di vendredi 27 octobre 2023 ñu ñëw ak yéen ci xibaar yi mujj jëm ci tàggat yaram waaye laata loolee kuy kenn ci page bi te abonné ñoo ngi lay ñaan nga abonné te bés cloche de notification bi nga xam ne lépp lu ñu dugg rek di nga bokk ci ñu koy njëkk a jot waaye yow mii di ma topp ci tiktok bi su fekkee abonné go li ma lay ñaan moo di nga abonné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 wal na la sa soxna di ngeen déggoo waaye tamit nee na bépp góor boo xam ne danga ngaa bëgg a takk soxna xale ba ngay bëggante nga bëgg koo nopp ba ngeen dëppoo ci ay xalaat ak lépp su ngeen jokkoo incha allah yàlla may na ko ca xam-xam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 laata ñuy door xibaar yi nag ñu fàttali képp koo xamante ni mi ngi topp ci YouTube bi su fekkee abonné gul ci sunu compte TikTok li ñu koy ñaan moo di mu dem ca commentaire yi dina fa fekk lien bi mu mën a abonné foofee ca TikTok ba loole dina yokk doole King Ouse Ngary ñu door xibaar yi dooree ko ci doomu Égypte bi di Mohamed Salah moom nag dugg na ci taarix ndax démb këlëbam di Liverpool dañ doon jàkkaarloo ak Toulouse gañe ko juróomi bal ci benn match boobee nag Mohamed Salah dugal na ci ca ab bit bit boobee sax tax na mu am 43 bit ci compétition européenne loolee nag amul benn jour bu ko amal nekk ci club bu nekk foofee ca Angleterre moom cundum moo ko defagum dugal 43 bit ci compétition européenne moo xam Ligue des champions la wala Ligue Europa moom Mohamed Salah def na ko kon dugg na ci taarixu football rawatina taarixu footballub Angleterre soxal compétition européenne ñu jugee ci Mohamed Salah ak i jalooreem dem ca waa Arsenal xibaar bii nag neexul ndax ñaar ñi ngeen di gis dañoo blessé loolee ki ko dëggal moo di Mikel Arteta mi leen di tàggat tey jii la ko xamle ci conférence de presse muy Thomas parte ak Gabriel Jesus ñoom ñaar ñii bu ñu sukkandikoo ci Mikel Arteta dinañu toog ayu bés yu bëri maanaam ay semaines yu bëri door a dugg ci terrain football ndax dañoo am xibaar boobu nag Mikel Arteta moo ko xamle. ñu jugee ci waa Arsenal ak seenu xibaar bu naqari dem ca waa Chelsea ñoom nag seen gone gii di Christopher Nkunku mi ngi yëg tan bu baax loole ki ko dëggal moo di Mauricio Pochettino mi leen di tàggat bi mu jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi di waajal match bi nga xam ne am na ko suba bu onze heures et demi jotee Brentford la ñuy dalal nee na Christopher Nkunku mi ngi yëg tan bu baax te jàpp na ni kat trêve bii di ñëw maanaam équipe nationale yi bu ñu wootee ba gaañ ñi delluwaat dina fekk mu wér ba nekk à cent pour cent mën leen a jàppale ci match yi nga xam ne am nañu ko ñoom waa Chelsea te gone gi nag li muy def mën na ko waa Chelsea yaakaar nañu ko te ñoo ngi koy xaar bu dara soppeekuwul ci diggante bi nag trêve bii di ñëw bu jeexee moom Christopher Christopher Nkunku dina nekk à cent pour cent ngir mën a jàppale waa Chelsea rawatina ca attaque ba loolee nag ki ko xamle moo di Mauricio Pochettino mi tàggat Chelsea ñu jugee ci waa Chelsea ak Christopher Nkunku xibaaram bu neex dem ca waa Manchester United ñoom it seen latéral bi tudd Aaron Wan-Bissaka bi wér na dooraat na entraînement yi gëj ngeen koo gis mu dugg ci terrain football li ko waraloon moo di ab blessure jamono ji nag mi ngi yëg tan bu baax njiitu club boobee li ñu jàpp moo ak fukki mii di Aaron Wan-Bissaka dina nekk à cent pour cent mën a jàppale Eric ten Hag mii tàggat Manchester United ci match yi nga xam ne war nañu ko amal file ak fukki fan ñu jugee ci waa Manchester United ak Aaron Wan-Bissaka wax xibaaram bu neex dem ca waa Juve bu ñu sukkandikoo ci Gazzetta dello Sport waa Juve ñoo ngi waxtaan ak doomu Italie bi tudd Manuel Locatelli ngir mu yokk kontraam toog foofee jàppale leen te waxtaan bi nag mi ngi jëm kanam bu baax bu ñu sukkandikoo ci Gazzetta dello Sport li ñu jàpp moo di balaa ñooy yegg ci weeru janvier doomu Italie bi dina yokk kontraam ci seenub club toog foofee jàppale Maximiliano Allegri ñu jugee ci Locatelli waa Juve duñu ko génn gum doomu Italie yi tamit duñ leen bàyyee gum dañuy jël doomu Italie bi tudd Federico Gatti moom nag ma ngay